ñu bëggoon a xam euh, jëwrin events bi lan moo gën a nekk taxawaayam ci biir kër gi waa events bi nag moom daanaka day mbir moo xamante ni ci ndigalu ku baax ki lañ ko sosee ay at ñu nekk ci ay ati at ñu nekk ci di ci liggéey at bu yàlla sàkk ñu koy bu màggal di jeexee rek ñu tàmbali liggéey bi ba màggal jotaat waaye nag lépp nag day doon ci ndimbalu ku baax ki lay nekkee ndax daanaka boo xoolee lépp ci moom lay tàmbalee te lépp ci moom it lay yem kuréel jëwrin mun maar moo ko jiite tey jii xëy na moom moo ne ma waxal ma wax waaye liggéey bi boo xoolee bërëb bi nii mu demee ku baax ki moom day am ay nitu boppam ay ganu boppam waaw jox ñu ndigal bi ñu koy taxawal bu ko defee yenn gan mi bu ñu ñëwee ñu gis liggéey bi ñu fiy def mën leen mën leen dalal xewal géeg lépp ñu mën ko defal leen ko boo ko boo ñu mën ci xewal bu baax a baax daal loolu daal daanaka moo waral lii di ñuy woowe ndax di events bi waaw boo boo xoolee comme ku mel ne ren ji daanaka ñetti fan lañ ne la ñuy restauré comme ku mel ni démb 17 safar bi tàmbali nañu def nañu cocktail ak tey jii boo xoolee daanaka ndékki la ñu def añ dinañ def cocktail ak reer ëllëg tamit di 19 safar bi incha allahu rabin am nañ yéene tamit def cocktail ak reer daal noonu lañ koy defee loolu lépp nag waaye ci ndigalu sëñ bi lay doon ndax ay mbébét yu ni am na dem toog waxtaan seeg moom nañ ne mun nañu xamal nañu defee leen ko nii ak nii ak nii daal waaw. dafay mel ni ci déggee leeral gi ci ni nga ci gën a leeral mooy euh, seen bëgg-bëgg dëgg mooy képp nga xamante ni ñëw na fi rek li nga xam ne yittewoo na ko rek ci kër gi mu fekk ko fi loolu day doon liggéey boo xamante ni lu am solo la ñu ngi siaraat mbooloo mi bu baax ba tey comme ni ñu ko waxee woon ren euh, ci biir kër Serigne Mouhamadou Mourtada tey ñu nekkaat ci beneen pàcc boo xamante ni ñu ngi koy muy pàcc bi nga bi la mooy waañ bi ñëw jàkkaarloo fekk ak ñi nga xamante ni ñoo fi nekk doon leen jox seen doon leen jox kàddu yi di leen euh, ñu gën si ràññee ki nga xamante ni mooy Dioury Manel di kilifa waañ bi Dioury ñu ngi lay siyaar bu baax di la laaj euh, bëggoon nga xamal organisation waañ bi nan la tëddee. di waxati jërëjëfe borom tubaa di dolli di waxaat jërëjëfe borom Touba di wax jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall sunu jàmbaar ji sëriñ sëriñ tubaa sëriñ Saliou yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla na yàlla yokk ay leeram ci barkeem sunu sang bi ñu yaakaar tey ëllëg mu dox sunu diggante ak sëriñ Touba di sëriñ Mourtada mu sëriñ Saliou yàlla na ko fi yàlla yàggal wéral ko kàttanal ko musal ko ci ndab ak ndog ba lim yéen a liggéeyal sëriñ Touba maamam yéen ko liggéeyal sëriñ saaliw yéene ko liggéeyal jaam ñi lépp mu mën koo matale te ñu ànd koog moom ci daraje sëñ Touba. Euh, di wax ni Tawfekh Production ñëw gi ñëw fii tey ci waañ wi bég nañ ci. bëggati nañ ci ndax daaw ñëwoon nañ fi daaw jéeg ñëwoon nañ fi ren ñëwati nañ fi yàlla nañ fi ñëw déwén te fekk ñu fi kenn bañ a manqué beneen bi si des xëy na dañuy wax ci turu Assane Fall min bokkal waañ bi muy jëwriñ ji ndax moom wax dëgg yàlla danoo am complicité bu garaaw boo xam mi ngi ci suñu biir ñu ànd di liggéey mu am yu mu féete woo ma am yu ma woo mooy bu liggéeyee bu nee suba la màggal moom mooy xëy nekk ci waañ bi ba guddi man ma fanaan ci man ak yenn soxna yi ak yenn góor yàlla ak jëwriñ manel mi ñu fanaan fi nekk fi fasa e- fas yéene togg ndekk yi ñu mooy misu yi ñuy defar ak laax yi buñ paree ci loolu dañuy jublu ci añ yi daal di koy àndewaat ñun ñëpp lépp lu jëm ci wàllu paella bi man maa koy defar man mii nga xamante ni moom mooy liy ànd ak fruits de yi ak lépp loo xam ne aju na sa te mbokku taalibe yi di ko réclamer saa su ne ñuy taxaw saa su ne di si di si di ko ànd ñun ñëpp te kenn ku ci nekk doo seetaan ndax bu doon man kese du sotti waaye dañ koo ànd ñun ñëpp moo tax mu sotti ci niñ ko mën a waxee ndax waañ bi mooy waañ bu mag bi donte nag am na ay togg yu am ci biir muy lu mel ni event nga xam ne ñooñu ay ganu sëriñ bi la ñuy toppatoo ak yasa aju ku mel ni taabal bee nga xamante ni ñu ngi koy askanelee ku mel ni Cheikhou Ndiaye moom ak waa Thiès ànd koog daayira si kër gi yëpp nag amuñu ci xejj ak seen te te loolu loolu ndigal lañ ci am doo xam dafa jógee ci sëriñ bi sëriñ bi moom moo xool ba seppali ko daal ni lii de damaa bëgg ngeen gën koo jëmmal ci kër gi te mu yaatu ba ñëpp bokk ci te Cheikhou Ndiaye miy jëwriñ ji saa yu xëyee ci loolu lay dox nu mu gën a yaatoo ba ñëpp di ci gis suñu bopp kon loolu ñu ngi ciy sant Sëñ Tuubaa baax a baax. am mbégte ci li nga xamante ni moom la fi jëriñ mën a mën wax léegi te liñ ci gën a jàngatee rek ci ci leeral ci liñ ci gën a leeral mooy benn nga xamante ni Sëñ Murtala woote na ko ci këram gi ba ci biir waañam bi kon bu defee kii nekk suñu càmmoñ ñu koy wax suñu mbéy moom mu teewal fi ñu nga xamante ni ñooy lewatal nag yi. Cheikhou Ndiaye question boobu ñu ngi ci sawar di ndax soo xoolee bi ne suba la màggal gi si guddi gi dinañ lewatal ñeenti nag ak benn giléem maanaam ngi màggal bis bi bu ñu xëyaatee yeneen ci teg ñaar wala ñett àndaat ak yi ñu nekk si waañ bi benn laaj seen xam-xam ñu toll ak gars yi maanaam loolu moo nekkoon nga xam te ni moom lañ ci nekk si bis bi ak gars yi ba ngoon jot di maanaam di sàkku su ngërëmu sëñ bi tamit ni ko sëñ bi bëggee ñu koy defee noonu. solo sëñ Bass nag moom mooy jëriñu euh, Lagambal ñoom ngeen mel ne li jëm ci wàllum plonge raxas ñoom ñoo ko yoon gàttal rek waañ bi moom ñu ngi ciy gën a sant yàlla bu baax a baax ci bennoo gi ñu doon ànd di ci ni ko suñ murtalaam suñ saal yu bëgge doon benn di xàccandoo di doorandoo bokk liggéey bi ñu nekk ci plonge ak ñu nekk ci kii bi kenn mënta ràññelante ak sa morom ndax fu mu fooxe rek ñu daal di fay daal di fay dem jàppale leen ci ci mbir moomu waaw léegi wax dëgg fa yàlla jafe-jafe moom amuñ ko ci wàllu raxas mi ndaxte euh, wax dëgg fa yàlla taxawu nañ ci te postafu nañ ci lool wax dëgg yàlla ñoom buñ ah, buñ ñëwee amuñu fenn yitte fu dul maanaam ci waay ci ci ci ci raxas mi ak euh, maanaam postef giñ ci àndal ak bëgg-bëgg gi foo ko nat passé na ko kon ñu jara sant lañ ñu jara ñaanal ñaanal lañ sëñ Modou Diakhaté moom lañ waroon ubbee kon sëñ Modou jaxate ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm mm-hmm. ndax sëñ bee ñu booloon ak moom mm-hmm. te bam ñu sëñ bi booleek moom ba léegi mhm. mosu ñoo gis ci moom lu ñu naqari. kon mbokk yi ñoo ko ñoo ko déggandoo loolu mooy li nga xamante ni moom lañ leen indiloon ci waañ bi ñu àndoon ko ak jëwriñ Manel mi nga xamante ni mooy kilifa waañ bi euh, lépp dégg nañ ko muy ay kàddu yu am solo rotee fi gën a firndeel li nga xamante ni moom la sëñ bi di woote mi bennoo ak mbooloo gu doon benn. <coughs> bisimilah rahmaani rahim salaamaaleykum mbokk internet yi euh, Nox ju Nox ju TV ak Tawfekh Production. ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp di leen euh, jaajëfal di leen dikkal ni tey jii ñoo ngi ci bisu 18 safar biir kër Serigne Mouhamadou Mouxtada ibn Serigne Saliou nekk ci euh, benn pàcc boo xamante ni euh, muy pàcc boo xamante ni ñu ngi ko tuddee wàllum distribution maanaam fu ñuy séddalee ay ñam ñu nekk faak ay jëwriñ yoo xamante ni yu am solo. jëwriñ ñu ngi ñu ngi lay delloo siyaar dañoo nekk si pàcc bu am solo ndax sëñ bi moo ne màggal bu ñëwatee bisam bi nañ ko santale yàlla. te ci santale yàlla boobu da ci waxaale berne du ko dalee ci ginaar ba ca gëléem te ku ne berne na séddale kon nag jëmmi-jëmmi bâche bi lu ko tax a taxaw mooy maanaam séddale ñam yi muy ndékki comme ni ñu ko defee léegi nii ak añ ca kanam ak ngoon ca reer ba waaw kon mooy mooy mooy jëmmi-jëmmi bâche bi nga xamante ni ni ñu koy waxee bâche distribution nga xam ne képp koo xamante ni taalibe la ci kër gi ñëw màggal ci moom fii ngay dugg ñu jox la nga ndékki jox la nga añ la nga waaw kon nag jëmmi-jëmmi liggéey bi loolu la jëruñ waaw léegi nag euh, buñu ne distribution yamul lekk si la lekk dafa am collation chaud ak collation froid xam naa moom jëruñ dina si ñëw moom mii nga xamante ni mooy jëruñ Sandiaye moom moo yor collation chaud collation froid bi jëw liñ euh, palaay moom moo ko yor waaye ñun jëmmi-jëmmi distribution bi nga xamante ne lépp luy waaj xeetu lekk lu ñuy jëfandikoo fii lañ koy joxee si bâche bi kon euh, fii suñu càmmoñ ñu ngi am sëñ Baye Cheikh moom mu ngi mu ngi bawoo Dakar moom di kenn it moom ci ci liggéey bi Baye Cheikh ñu bëggoon nga wax ñun naka ngeen dundee liggéey bi ak euh, yan euh, jafe-jafe ngeen ci jànkonteel. salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi ziar waa Nahju yëpp di ñaanal sunu sang bi Cheikh Mourtada moom Serigne Saliou Mbacké sunu borom yàggal ko fi lool te mu gën a wér ñu gën a ànd ak moom liggéey bi Serigne bi waaw liggéey bi de moom euh, metti na mettiwul liñ ci jublu mooy. Euh, dabu mbégum sëriñ bi ndax comme gan ñi màggal gee leen fi te dañoo ñëw ngir ànd ak ñun màggal gi ci kër sëñ Murtada ñun baas bi ñuy séddalee xéewal yi moom lañ yor waaye dañuy bëgg ba képp ku ñëw ci kër gi rek nga mën a xewlu xéewal xéewlu gu jàppandi te doo am benn jafe-jafe waaw ñun loolu lañ yor ma ci jàppale sëñ Mampa ak Boukounta ak mbokki taalibe yi ñu ko àndal yëpp rek maa ngi tudd di wàcc foofu kàddu waaw kon mbokk yi comme ni ngeen ko déggee rek loolu mu doon loo xamante lu am solo la euh, yaakaar naa ni kii moom la ñuy wax suñ buukante mooy mu nekk féete Mbuur moom moom am pa mu doon loo xamante ni tey lu am la ci biir kër sëriñ bi ñoom ñu koy ñu taxawal ko ci loo xamante ni bëgg euh, li lépp li nga xam ne xew xewal la jàppandi ci mbokku taalibe yëpp yemul rek ci ñi nga xam ñooy daal ci kër gi ndax seetlu nañ ci am na si ñoo xamante ni dañuy jógee sax ci yeneen gox di ñëw di di fi xéwloo tey sëñ sëñ Moussa képp koo xam ni koo xam-xam ni moom ay mbiram yaatal la ci xam ci biir kër Serigne Mouhamadou Moutala topp nag daan topp commission yi benn par benn te ñu jaaroon ci commission cuisine ak distribution mu toll nii ñoo ci commission bi ñuy wooyee collation euh, di commission boo xamante ni lu wàllum restauration dañ koy def ak euh, li nga xamante ni mooy di jëm ci café was ñoom ñoo koy séddale ñuy taxaw ak fii soxna ñuy wax euh, Aminata. bokk ci kenn ci ci mbooloo mi. di sant Serigne Mourtada mu sëñ Saliou Mbacke mii di sunu la waaw lii li mooy maanaam yitte bi nga xamante ni ci lañuy dox. Euh, loolu mooy nekk suñu yittee lépp loo xamante ni buñ ko defee ci màggal gi rek euh, nit ñi dinañ bég ci loolu la ñuy dox ànd ceeg sunu soxna yee ngeen di gis ànd ceeg sunuy càmmiñ daayira bi ci di ci dañ di maanaam buñ buñ jógee màggal ni daanaka lañuy tàmbali di waaj ngir màggalu dewen ci la ñuy tàmbale ci lañuy tàmbale saa su ne ñu ngi ci ay jéego di def suñu kéem kàttan ngir lekk li nga xamante ni moom la ñu mu Mourtada Saliou sant ñu di ko jëfe nañu lépp nag waaye dañuy jéem rek asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, waa Tawfekh production ak waa Naxju production ñu ngi leen di euh, Naxju TV ñu ngi leen di ziar bu baax a baax den ndokkeel ci bis bu tedd bi di màggalu euh, Serigne Touba yi waaw comme niñ ko faral di ko defee rek saa su ne euh, comme niñ leen ko waxee waat niñ leen ko waxee woon taaw noonu lañ ko noonu lañ ko doxalaate waaye day mel ni comme niñ koy faralee di wax naan sëriñ bi moom amul tànk ginnaaw tànki kanam rek laa am noonu lañ ci doxe am ay innovation yu am solo yoo xam ni bu ngeen parcourir parcourir li nga xam ne moom mooy ci biti ak fi ngeen xam ne moom lañ moom ngeen nekk di ngeen gis ne am na changement yu bare bare yoo xam ni def nañ ko ci loolu nag li ko waral lépp mooy waa équipe collation à chaque fois dañuy xool li nga xam ni mooy moom la moom la waa waa kër gi bëgg